jaaykat ya nekkee ca marché Sandaga li ñuy xamle mooy ñu ngi gis seen bopp bu baax ci njaay mi ci jamono bii nga xamante ni ñu ngi ci waajtaayu feetu fin d'année yi. Oh, macha allah wax dëgg yàlla nag ñu ngi ñëw xanaa kay sénégalais dafa taamu nag dernière heure quoi parce que boo xoolee démb ak tey ak si biir semaine bi si lañ gën a ñëw quoi veste blazer genre yooyu moom dañ ko bëgg trop quoi ak super 100 yi super 100 yu large wàcc ba ci suuf. yooyu day dem waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñeneen ñi gisuñu seen bopp ci njaay mi ren ji ah ñu ñëw ndànk-ndànk rek am nga jamono moom neexul xaalis amul dañuy furaatu rek waaw at yi moom neexagul moom. xanaa ko daal sant yàlla rek am wér daal sant waaye nam daa mel ak léegi mu bokkul jamono moo dox réew moo amul xaalis. ah mais nu ma laa mel moom ren moom daa xaw soppi bu baax a baax a baax xam naa nag jafe-jafe yi jamono ji moo tax. nam demoon dem daaw demoon ren dañ sant yàlla baax a baax ndax moom bu xëyee rek suñu borom jox la ak wér mën a war sant yàlla baax a baax a baax duñ ñoom lañ daan jaay ba jaay am ñoo xam ne yokk am ñoo xam ne dañ daan jaay ba tey loolu la ñuy jaay waaw man mii mi ngi nii dama daan jaay jaay am naa ba tabari naa ci morom nag jamono ji moo toll fànn ni bii seegal nit ki la nga mënan daa doy waar dem mënatoo ko presque loolu la soxna si ñu fekk ci boutique bi itam mu ngi xamle yére yi nga xamante ni ñoom xale yu jigéen ñi ñoom la ñuy gën a préféré ci jamonoy fête bi. ñu ta dañuy jël veste yi pour seddaay bi mais robe yi la plupart la ñuy jënd. xaalis booy problème daal <laughs> prix yi ak feet bi nii dañ koy yokk. mu nekk période boo xamante ni ñii di jaaykat yi ñu ngi siy gis seen bopp bu baax waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ñeneen ñi ñu ngi xaarandi ba tey client yi ñëw.